en danger. Nous sommes en danger parce que tey buñ demee ba jël li nga xam ne moom mooy suñu estion bu gën a fort ñu koy woowee gendarmerie nationale nga xam ne mooy police ndax bu ñu nee bavure policière gendarmerie nationale moo ngi ci biir police moo ngi ci biir douane moo ngi ci biir lépp a ngi ci biir léegi nag est-ce que buñ toogee di ko seetaan bañ jël li nga xam ne moom mooy suñu ay euh, institutions yi nga xam ne tey jii kay képp koo xam te nii yaa ngi am benn tiitaange ci li nga xam mooy sa sécurité ñoom nga war a gis ñoom tey bu ñu demee tey ba du ñu xoqatal yaakaar naa ne boobaakat war nañoo taxaw seetlu waxtaan ak euh, sénégalais ñu xool ba xam loolu kat fan la ñu war a mën a jëmee. te nag suñuy kàddu mooy kàddu taximaan yi suñuy kàddu mooy kàddu. transporteurs yi yaa xam njeganjaay nga yor wala car rapide wala nga yor euh, kalando wala nga yor moto mm-hmm. jakarta wala nga yor moto di dawal si tali bi suñu kàddu te dañuy jël kàddu yooyu yëpp tënk ko ci lan est-ce que tey ñun lii ñuy dund en tant que sénégalais lii ñuy dund en tant que citoyen est-ce que loolu mérité woon nañ ko est-ce que mérité nañ tey jii kat gendarmerie nationale police ñu leen di utiliser pour ñuy dal suñu kaw ndax jàpp naa ne kat ñun duñ seen ay ennemis ñun Sénégal ñun population ñun ay citoyens duñ ennemi wu ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, gendarmerie nationale duñ ennemi ñi nga xam ne ñoom ñooy police ak ñeneen ñu mel ni ñoom. léegi nag le constat est mooy lan da ngay daw si tali bi santeeg benn gendarme mu yuuxu la des fois mu jaay la doole nangu say pièces. wa nga seeteeg benn police policier mu jaay la doole wala mu yuuxu la gëdd la alors que ñoom ñoo ñu censé protéger est-ce que loolu ñun dañ ko war a seetaan est-ce que loolu dafa nekk loo xam te ni moom moo nekk li nga xam mooy jaar yoon. raison pour laquelle ñun ñi nga xam ne ñoo ngi ñuy woowee ay euh, activistes ñu taxaw tey vraiment pour ñaawlu loolu yamuñu rek si ñaawlu ko mais dañ leen xamal lan moo war a am si suñu réew bi nga xam ne tey ñun ñi fi nekk dañ leen fal. pour lan ñu garantir li nga xamoo suñu sécurité gis nañ gendarmerie dem fële si Ndingler dem noot population Ndingler yi ndax lan intérêt benn privé mooy waa Sedima bu Babacar Ngom amuñu benn problème nag ak gendarmerie on les respecte beaucoup amuñu benn problème ak li nga xam mooy suñu institution yi nga xam ne ay euh, hommes de tenue lañ mooy gendarmerie di police di douane amuñu ñoom benn problème waaye tey bu ñu demee ba ñoom ñu bëgg ñoo teg fitna ah bu boobaa dañ taxaw kat ne leen kat vraiment fitna gii nga xam ne ñu koy teg donc du dëgg du yoon. tey jii tey yaakaar naa ne tey bu ñu demee ba suñu état Sénégal di utiliser li nga xam ne mooy suñu ay force de défense contre population Sénégal di protéger ay ay intérêt privé là bu boobaa mun nañ ne kat qu'est-ce qui se passe dans ce pays. est-ce que nous nu sommes pas étrangers chez nu loolu moo waral tey ñu woo leen fii tey pour waxtaan ak yéen wax leen ni ñun lan lañ fi nekkee mooy lan wax sénégalais yi dëgg lan lañ fi nekkee mooy lan fexeel tout possible lu jaarul yoon ñun lii kat jaarul yoon lii moo fi war jaar yoon. encore une fois ndax ñun yaakaar naa ne sénégale yi laaj ñu leen seen kàddu laaj ñu leen seen baat pour ñu fal ñu wala ñu def ñu leneen mais lan lañ fi nekkee mooy lan di défendre intérêt population bi. défendre intérêt population bi nag ñun bu ñu taxee jóg. yaakaar naa ne am na loo xam te ni ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy le les hommes de tenue ñoom ñoo ñu war a censé protéger ndaxte da ngay gis benn homme de tenue mu ne la wala benn gendarme mu ne la ñun lan muy suñu lan mooy suñu liggéey même surtout les les élèves les élèves gendarmes lan mooy suñu liggéey ñu ne ñun ñun ay maintien de l'ordre lañ non mais attends maintien de l'ordre loolu moo nekk seen dernier rôle seen premier rôle lan la mooy c'est c'est de sécurité ndax fu ñu waxee maintenir l'ordre rek ça veut dire que ordre amu fa donc ñun munuñu nekk ñoom mënuñu nekk fii nga xam ne donc dañoo war a euh, garantir suñu sécurité euh, jël ko teg ne leen naan dañuy maintenir ordre man ordre la ñuy maintenir tey jii tey dangay gis benn population benn privé jógee fële bëgg leen a jaay doole bëgg nangu seen suuf léegi ñu état du Sénégal woo benn woo woo woo ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, homme de tenue yi pour ñu ñëw dal ci kaw population bi est-ce que loolu boo kañ tey jii tey na nga la Euh, démb ne nga leer la tey ñi nga euh, to kii euh, ñoo ngi ñoo ngi tudd Tobène ginnaaw suba kan moo si war a topp kan moo si war a topp li est-ce que loolu dañoo war a toog ñun ñëpp di ko seetaan raison pour laquelle ñun ñu engagé wu vraiment pour féetewoo si nga ci nga xam ne moom mooy population bi te yaakaar naa ne tamit suñu féete foofu la homme de tenue yi waroon di féete waruñu nangu benn yoon ñu leen di utiliser waruñu nangu benn yoon ñu leen di jël di leen def ay ay ay ay ay ay bras pour que ñuy sànq ñi nga xam mooy population bi ndax population bi ñoom ñoo leen di fay ñoom ñoo leen di seen impôt ci la ñuy dund donc raison pour laquelle ñu ne kat il faut que la ça s'arrête il faut que lii mu jeex fi tey ñu décrier ko bu ko defee opinion nationale et internationale ñëpp xam ne carrément Sénégal kat li fi am du dëgg du yoon parce que nu ñu jël li nga xam mooy suñu ay euh, sécurité ay force de l'ordre di ko jël di leen bu di bunduxatal askan wi. loolu nag moo tax ñu dugg ci li nga xam moom mooy euh, gendarme bi nga xam ne dañu ko bëgg a jël transformer ko en une institution privée. pourquoi mooy dañu ko bëgg a transformer en une institution privée tey jii tey dem leen ngeen xool si si si dëkk bi ba may jógee Tivaouane di ñëw fii si dakaar péage bi laa jaar ba ma jaaree si péage bi foo romb yaa ngi fay gis benn post de police poste gendarme maanaam dañoo jël suñu gendarmerie di di garder sécurité ñi nga xam ne ñoom ñooy étranger yi tey ICS bu amee problème ak Tobène gendarmerie nationale ñoom la ñuy woo wala ñuy woo police tey benn institution privée bu fi ti nekk wala bépp privé bu fi ti nekk soo ñëwee Sénégal nga am jafe-jafe ak population bi ñan ngay woo mooy lan suñu ay force de police pour mu dal si ko population bi est-ce loolu noonu moom moo war a nekk procédure lu lu lu yoon parce que yaakaar naa ne mbir mi nañ koo mun a dañ koo dëpp ndax tey jii tey ñoom bu ñu ñëwee investir suñu dëkk ñu jël suñu ala jox leen jël suñu lépp jox leen am na yaakaar naa deselu leen dara entreprise yu nekk Sénégal sénégalais yi deselu leen dara ndaxte péage bi sénégalais yi ñoo koy fay soo demee ICS fu muy fu mu xal la logé si département de Tivaouane tey jii ICS nekk département de benn wagon bu fa romb rek wagon bu nekk moo ngi génne 45 millions de francs CFA 45 millions yooyu muy génne ñaata wagon wagon bi si nekk bu euh, nekk euh, train bu nekk dina def au minimum 20 jooju yëpp feeñu si dëkk boobu nga xam ne moom mooy si département de Tivaouane tey jii tey maane amaane loolu xew fële si Beyrouth mën na xal mën na xew mar day taali Tivaouane ndax lan ndaxte yaakaar naa ne benn explo benn bi si si si wagon yooyu bi si explosé teewoon kenn du des ndax ñun daanaka département bi réunion léegi nag euh, fii ñëw ma fi pour di leen wax di expliquer ay problème mu Tivaouane mais gaa Tivaouane si si Sénégal bokk man Tivaouane laa jógee donc suñu fierté la waaye tamit dama leen bëgg a xamal li nga xam ne moom la situation yi di dund li nga ak euh, li nga xam mooy privé bi par ñu bëgg a jël li nga xam mooy suñu ay euh, ay de l'ordre bëgg leen a teg bëgg leen a jaay doole bëgg leen a bëgg leen a jël bëgg a jël euh, gendarmerie nationale police di ko jël di ko def benn bras armé te loolu duñ ko nangu duñ ko siraan tey duñ ko siraan suba wax dëgg fa ne yàlla parce que nekkul loo xam ne lu neex si xol la parce que ñun mënuñu ñëw Macky Sall mënul ñëw ak euh, état du Sénégal mënuñu ñëw ñu fal leen bañ leen fale ñu jox leen sécurité sécurité pour la ñu sécuriser ñun population Sénégal ba noppi ñu jël suñu suñuy sécurité bëgg bëgg leen a bëgg a dal kaw ndax lan pour défendre intérêt euh, les étrangers yi wax naan léegi si cas de de de de Eiffage mooy euh, péage bi dem leen si si total yi total boo leen mënta gis si Sénégal foo dem di nga gis benn montage policier wala gendarme bu fa taxaw mais tey jii tey ñun ay sénégalais lañ lii ma leen wax xam ngeen bu baax ni dëgg la ñaata nit lañ fi cambriolé seen ay ay seen ñu ñàkk seen liggéey ñaata nit ñoo tijji seen place ñu cambriolé leen foofu ana gendarmerie te ñoom ay sénégalais lañ te jàpp naa ne ñoom ñoo gën a yelloo li nga xam mooy protection. tey dangay dem si ab village doo fa gis policier doo fa gis gendarmerie mais da ngay gis benn entreprise fekk fa dafa nekk si ay gendarmerie ak ay police mu nekk lu jéggi yoon donc ñun duñ seetaan mukk ñu jël li nga xam mooy gendarmerie ak police di jël suñu ay forces de l'ordre di leen transformer en des institutions privées donc loolu duñ ko seetaan tey duñ ko seetaan suba parce que fii bu 2024 yaakaar naa ne 4 ans du 4 jours du toog di muñ naan dañuy xaar Macky Sall dañuy xaar élection ñëw pour que dëkk ko def bu jëree ñu tëj ñu tëjaan ñu tëjaan tëjaan dinañ ko dinañ taxaw population bi ndax population bi dañ ñoo soxla soxla soxla nañu te foog ñu taxawu leen di di préciser encore une fois amuñu benn problème ak ñi nga xam ne moom mooy euh, gendarmerie nationale ak les forces de l'ordre ndax ñoom ñoo ñoo war ñoo ñoo war a garantir suñu ay sécurité bu ñu nee ba garantiruñu ko nag foog ñu taxaw ñoom ne leen carrément kat li nga xam mooy seen rôle lan moo tax lan moo leen lan moo tax defoo leen ko suñu jigee si loolu ñoo ngi wax terrorisme ñoo ngi wax terrorisme saa su nekk mais tey Sénégal yéen fee gis terroriste est-ce que gis ngeen Sénégal terroriste non mais amu fi lan ngi saa su nekk nag ñoo ngi jël li ñuy dépassé affaire si wàllum armement kenn xamul nu mu toll muy si oto yi si si si lacrymogène yi si arme luur yi kenn xamul nu mu toll loolu pour ñan la si kaw ñan lañ ko war a def pour ñun sénégalais yi ñun est-ce que Sénégal ñun tey jii kat amaana alal jooju nga xam ñoo ngi koy def si armement est-ce xajul woon si mbënd mi si inondation bi est ce que xajuloon si village yi ñu defal leen ay ay cas de santé yaakaar naa ne donc loolu moom mooy priorité mais jàpp naa ne tey jii tey ñun bu ñu seetaan li nga xam ne suñu réew foofu la bëgg a jëm foofu lañ ko bëgg a yóbbu ah mbéjum euh, euh, lu naan fu muy fu muy jëm si euh, mboy gi lañ dara lañ nar a yóbbu raison pour laquelle ma ne ñu ne woon tey kat dinañ taxaw vraiment pour waxtaan ak sénégalais pour xamal leen ne kat ñun lépp loo xamante ni tey mooy nekk suñu kiiraange tey lum ñu jaralul rek amul. am lu nekk jaral nañu ko pour que suñu kiiraange ñu mun koo téye parce que ñun ay sénégalais lañ si dëkk bi lañ xam fi lañ juddoo fi lañ yaroo fi lañ màggee suñu ay parents fi lañ nekk donc ñun Sénégal ñun dañ ñoo war a sécuriser dañ ñoo war a aar tey nag te ñun suñu principal ennemi ce sont les étrangers. tey ji tey bu ñu ñëwee si réew mi ñoom ñooy jël suñuy alal ñoom ñooy jël suñu ay suuf ñoom ñooy rey suñu suuf si ba pare rey bëgg a rey population bi loolu nag bu amee population bi dañuy loolu mënul ñàkk. nam xew si tóobeen euh, démb suba mun na xewaat ci keneen ak keneen ak keneen raison pour laquelle ñu taxaw ne carrément loolu kat du dëgg du yoon suñu jigee si li nga xam ne moom mooy terroriser bi nga xam ne euh, euh, homme de tenue ngi koy terroriser population bi yaakaar naa ne donc ñu jëm si li nga xam mooy wàllum torture mu nekk lu doy doy waar ndax torture amaana tey gën nañ koo dégg si dix-huitième siècle ndax ba ñuy wax wàllum torture boobu jàpp naa ne pour requis ay ay ay ay information la mais bañ demee ba en mille euh, au dix-neuvième siècle ci li nga xam ne moom mooy euh, apparition wu droit droit de l'homme yi ak euh, ONU gis nañ ne Sénégal dafa bokk ci li nga xam moom mooy ONU te moo am ay convention yoo xam ne dañ koo signé convention yooyu ñu signé tey jàpp naa ne amul yoon Sénégal amul benn yoon bi xam te ne may na ko tey ñu war a jàpp ay dignes citoyens di leen torturer donc bu loolu amee rek war nañoo taxawaat rappeler leen à l'ordre xam leen ne li nga xam ne mooy torture bi nga xam ne moo ngi am parce que amaana euh, tey ardo ñi ngi la mais suba kan moo war a topp te le cas de torture ça dépasse notre personne ça dépasse notre personne parce que mën na dal ku nekk si ñun mënoon naa toog defe nañ ma ko pare mënoon naa toog sama gaale jàpp sama ñàmbur xam nga daal di ne carrément donc sama yoon nekku si comme comme ni ko geneen gafe après keneen lay dalaat tey waa Tobine nu ñu leen def dugg seen biir kër kër yi maa ngi wax sànq si wàllum terrorisation bi dugg seen biir kër jàpp seen euh, jàpp jàpp ndaw ñi jigéen ñi paa yi ñëpp lañ jàpp jàpp leen torturer leen torture yi foofu la njëkk a ñu jàpp leen teg leen lu métti métti métti bañ leen jàppee métti leen ba noppi jël leen yóbbu leen commissaire euh, gendarmerie bu bu Tivaouane ak gendarmerie bu mboora wu ñu war leen a defaare defeere ñoo ngi leen jàpp le 12 war leen defeere la 14. ba ñu leen war a desee defeere le 14 bisu le 14 boobu ci lañ ma jàpp ñu le colonel Cheikh moom moo jiite li nga xam ne opération bu amoon lépp ci li nga jëm mu li jëm si fële si ci euh, ci ci Tobène colonel Cheikh Sarr boobu tey moom la sénégalais yi amul amul amul affaire ndax jàpp naa ne bu jàppee ab sénégalais torturé ko donc sénégalais yëpp la war a amal affaire te nag. donc xeex yi bëri na trop mais dama jàpp ne xeex bii moo gën a légitime bépp xeex bu am ndax tey ji tey yow mënoo di mën ay combat ñoo ngi mën ay combat bu nekk mon frère Abdou Karim du ma bàyyi ma fen euh, ak euh, Clédor combat bu nekk combat citoyen bu nekk ñoo ngi koy mëne mais tey suñu demee ba yow amoo kiiraange yow mi nga xam ne yaa ngi war a taxaw askan wi soo demee ba yow soo mënee ay combat di xeex yow sa sécurité garantiroo ko est-ce que combat yooyu ngay mëne ça vaut la peine est risque sax te tey ji tey ñoom ñoo ñu waroon a garanti ne carrément yéen kat da fi nekkal askan wi te ñun askan wi ñoo ñuy fay donc yéen ñun ñoo war a garanti seen seen sécurité mais defuñu ko lan lañ def di tag di jël di di ñu dóor di ñu torturer di ñu malmener di ñu intimider saa su nekk donc te loolu dafa war a doy loolu dafa war a dafa war dafa war a nekk loo xamante ni donc dafa war a doy sëkk si réew mi donc moo leen koy bamtuwaat mes camarades nous sommes en danger nous sommes en danger là où sénégalais yi tey jii tey bu ñu déggee ñooy seen doom dañ ko jàpp torturer ko lu gën a garaaw mooy ñu jël ko bu kokkalee motif jël yàmbaa dugal si poosam bu amuloon du ma ko wax parce que ba fii may wax ak yéen ba si conférence de presse bii may wax ak yéen je suis en nii may wax ak yéen bu fekkee ne li may wax du dëgg Cheikh Sarr manqué woo mu porté ma plainte pour diffamation na ma porté plainte pour diffamation def ma citation directe ndax lii may wax nii dëgg ju wér di ko seedeel population yépp nag population Sénégal yëpp ñoo ngi leen koy séddal ne leen xam ne carrément Ardo Gningue pare na pour ànd ak Cheikh Sarr ñu Cheikh Sarr yóbbu ko ci yoon pour diffamation ndaxte loolu mu loolu noonu bu amuloon du ma ko wax ndax gendarmerie bu Tivaouane nekk na ay locaux yu luxe yoo xam te ne soo fa demee di nga fa fekk ay caméra de surveillance tey jii tey ba loolu amee ba ma ko relayé ci presse ba pare gis nañu réaction wu gendarmerie nationale yóbbu na seen porte parole ki nga wax mooy colonel Pape Diouf mu dem pour défendre ki nga xam ne pour décharger euh, pour décharger Cheikh Sarr jël ma chargé ma ba loolu amee donc man li ma waroon def mooy le commandant euh, Mbengue au passage maa ngi saluer ndaxte vraiment moo ngi si si liggéeyam moo ngi def liggéeyam mu convoqué ma à 10 heures ñu yóbbu seen porte à 7h30 ñu convoqué ma à 10 heures ba ñu ma convoqué à ñu def ma enquête administrative ba ñu ma defee enquête administrative le 31 août le lundi mercredi bii passé le 9 septembre daf ma woo daf ma woo le lundi dimanche la ma woo dimanche ou bien samedi la ma woo ne ma dañoo war a def reconstitution des faits lu garaaw garaaw garaw laa leen wax reconstitution des faits dafa am loo xam ne juguñu ñun ñi ñëpp juguñu kenn si ñun ndax bu ñu nee ba naan reconstitution des faits c'est parce que faits yi ni mu amee woon noonu lañ ko war a tegaatee sur la table le commandant Meng jugee Dakar man mu jugee dakaar ñu dem ba Tivaouane xoolal boobu manque de respect lu ñu njëkk a def lan la dañoo jël li nga xam ne moom mooy salle bi ñu ma doon torturer salle bi ñu ma doon torturer mu nekkoon salle de réunion table bi nii la meloon si table mel nii si lañ ma tëraloon doon ma torturer bañ demee dañoo jël salle bi transformé ko en bureau xool leen boobu comédie show dañoo jël salle de réunion bi transformé ko en bureau loolu lan lañ ko mën a tuddee destruction des preuves te yem mu foofu laa tàmbalee te ba ma demee nee naa leen caméra de surveillance yi exploité leen ko parce que man lii may wax ragalu ma ko tey ragalu ma ko suba te il faut que euh, justice soit fait ñun leen lañ fi nekkee mooy leen réclamer con la radiation de di colonel Cheikh saar parce que trop c'est trop ñun mënuñu euh, yoon mënul nekk di def liggéeyam ñoom ñu ne dañuy def seen enquête donc euh, ku ko dégg dina xam ne carrément lii teeyul xal parce que gendarmerie bu fekkee day enquête sur la gendarmerie donc loolu dafay nekk loo xam ne day du du day tee xel loolu bu xasee ba am nag ñoom ñu ñëw bëgg a def seen nu mu waree lu ko mën naa méng jugee section recherche euh, bu Tivaouane bu Dakar ñëw ba Tivaouane pour def si reconstitution des faits faits yi lu li ñu njëkk a mooy lan salle bu ñu mënoon torturé lañ jël def ko bureau di fa recevoir ay di leen entendre loolu de un manque de respect am na foofu noonu. te kan mooy responsable bi moom mooy le le chef chef ba l' adjudant chef ba moom mooy responsable je pèse bien mes mots parce que li may wax ragalu ko su ma ko ragaloon tey du ma woo média yi di wax ak sénégalais yi l' adjudant chef ba moom moo ma doon auditionné. ba mooy auditionné si carnet de déclaration parce que soo demee gendarmerie ak police seen différence foofu la nekkee police dañ lay dañ lay auditionné ci li nga xam ne moom mooy euh, seen ordinateur ngay wax ñuy tàppe soo paree ñu ne liiral soo liiree pare ñu génn ñu ñu tiire ko mais fekkee gendarmerie dañuy am li nga xam ne mooy carnet de déclaration si carnet déclaration boobu si lañ ma doon auditionné fekk ba ñu ma torturé ba pare colonel Cheikh Sarr dafa jox ordre ki nga xam mooy adjudant ba maa ngi taxaw la koy ne Cheikh saar jox ordre Cheikh chef ba ne ko ne ko si yamba bi mu ne ko auditionné ko si li nga xam ne moom mooy yamba bi en fait man bëgguma sax di di di di di wax loo xam du dëgg wala may wax parce que li may waxee ni suñu ma dégg nga xam ne carrément ado li may wax nii kat ay fee yu mu fekkee te yu mu dund la donc awma si benn intérêt pour que nekk fii di leen di di di schématiser may wax loo xam amul léegi nag nous sommes dans en pays de droit ñun jàpp ne pays bu ñu nekk pays de droit léegi nag loolu noonu c'est à la justice de le prouver léegi ñun lu ñu mën mooy lan fexe tout possible ba képp koo xam ne yow ñoo ngi teg injustice sa kaw yow nga relayé ko yow nga dénoncé ko léegi bu ñu tegee injustice lan la ñu war a def dañu war a toog pour pour pour pour métitlu ko wala non parce que ñun ñoo engagé wu pour xeex injustice dégg bu ñu tegee ko war a toog dañoo war a toog gérer ko mais non il faut léegi nag bañ demee sur le conscient des faits ba jëlee jàmbaab di wëg son poste dafa jox ordre chef ba ne ko eh kii laa bëgg nga nga auditionné ko si yamba bi chef ba dafa ne ma ma ne ko chef ba xam nga ne yamba bi indiwu ma ko fii lañ ko dugalee sama poos mu ne ma il faut que ma auditionné la si parce que ordre laa jot parce que chef bi nee na ma auditionné la si yamba bi chef ba daal may auditionné si yamba bi mu posé ma ay questions yu bëri nag carnet ba mu ma doon auditionné carnet boobu man nekkuma woon sax premier page ndax am na amaana ñu ma fa fekkoon ñoo xam ne ñoo ma fa njëkkoon ay cas carnet bi de un nekkuloon carnet bu bees ñu auditionné ma ba ñu ma auditionné posé may question yu bëri bëri sama relation ak Abdou Karim Xrum Xax sama relation ak ay Guy Marius Sagna relation ak keneen ak keneen ak keneen ñoo lànk aar la ñu bokk ñu posé ma samay relation yu bëri naan ñu waaw da nga attaque attaqué gendarmerie da nga bëggoon attaqué gendarmerie léegi yow waaw ah, ñan nga si lokal lool da nga bëggoon attaqué ICS boobu moom si gën a métti nag parce que xam naa ne ñoom gendarmerie bi prétexte la mais ICS ñoom leen ñoom xam naa ñoom ñoo leen jox ordre ne ñoo leen jox information ne leen booy bi kat dafa bëgg attaque attaquer ICS raison pour ñoom ñu jàpp benn citoyen sénégalais torturer ko ndax lan euh, indien bi nee na sénégalais bi dafa bëgg a attaquer suñu ay entreprise sénégalais bi nga xam ne tey dafa taxaw pour taxaw population bi nga xam mooy waa toobeen yi moom la indien bi wax ne carrément sénégale bii kat dafa bëgg a attaquer suñu industrie donc léegi loolu moo waral Cheikh Sarr ànd seeg ay éléments pour jàpp ma torturer ma pour jëkkëyit si man ay information par force ba loolu amee ba ñu ma auditionné moo wax leen li nga xam ne moo xew ma ne leen ñun leen moo ñu taxaw na jug c'était uniquement téye suñu ay pancarte taxaw si kanamu gendarmerie demander la libération des habitants de Tobène je pèse bien mes mots pour demander la libération des habitants de Tobène mais bu loolu amee naka la naka la naka la chef ba def chef ba dafa ma auditionné si yamba bi mu ne ma yow Ardo gis nañ yamba gis nañ dañoo gis dañoo fekk yamba sa biir poos est-ce que yaa ko fi indaale ma ne ko non ah, euh, ma ne ko chef ba mu ne ko man naka laay woowee rassemblement est ce que loolu xel sax yenn yenn na maanaam nooy woowee mbooloo ñu ñëw bañ may jàpp man y avait une cinquantaine de personnes trentaine de personnes naka laay wooyee mbooloo ñu ñëw mooy indaale yàmbaa sama poste loolu laa wax chef ba bu ma chef ba waxee loolu ma ko chef ba xam nga ne Sénégal gars yi dem leen si kaso yi ñaata nit ñoo fa am problème ak ñi nga xam ne ñooy ay takk der ñu tout de coller leen motif dugal leen si biir kaso ba ñu yàq seen àdduna ñaata nit mais loolu man expérience boobu dama ko xool ci man ndax tey ñoom naroon nañoo yàq sama àdduna su ma génnee fii di wax ak yéen tey torturé nañ ma ma mucc yàlla jëlu sama bakkan ñu jige si loolu ñu ñu ñu jige si loolu ñu ñu collé ma motif bañ ma collé motif aussi ñu mujj mu yàlla yàlla génn ma si ba mu set wicc mais loolu noonu est-ce que war na dalaat keneen est-ce que war nañoo toog di ko seetaan muy dalaat keneen loolu maanaam état du Sénégal da see war a jël ki nga li nga xam ne moom mooy euh, ay ay ay mesures yu yu yu yu restreinte da see war a jël li nga xam ne moom mooy ay daan yoo xam te ne ñëpp sénégalais yëpp témoin sénégalais yëpp témoin que ba lii amee kat état du Sénégal def na liggéeyam bu ko defee ñun ñu jox li nga xam moom mooy suñu kirange tey ji tey bañ ma kolee motif ba pare bañ may demandé ne ma waaw yamba bi yaa ko fi indaale man na leen non non yamba bi indaale wu ma ko fi ñu ne ma sii parce que sa poste lañ ko fekk ma ne leen képp koo dem soo demee si prison bi wala soo demee si kanamu juge koo munti laaj ba xam yaa fi indi yàmbaa bi wala indiwoo yàmbaa bi danaa la carrément indiwuma fi yàmbaa bi te juge bi du ko gëm parce que juge bi fekkiwul ba ngeen koy jàpp léegi nag leen dafa am ak ah, yoon dafa am ñett moo si am ku tooñ ak ku ñu tooñ ak kuy atti tooñ Sénégal nag da ngay gis kuy atti tooñ jël tooñ teg ko si kaw ku tooñ ngay gis kuy atti jël tooñ teg si kaw ku ñu tooñ donc loolu nag dafa nekk loo xam ne waar la tey parce que juge yi nga xam ñoom ñooy jugé fekkee wuñu les fekkee wuñ ko ñëw si PV bi nga xam ne moom leen ngay jox xoolal exemple lu gën a doy waar PV bu ñu bi nga xam ne moom la def si Ardo Gningue PV la procureur sukkandiku pour wax li nga xam ne moom mooy délit bi ma def pour jox ko juge juge war see mën a ma see mën a condamné loolu nan la mën a nekk est-ce que loolu yéen xel yoon na man man mën naa am ak problème ak gendarmerie gendarmerie jël defal ma PV PV bu ma defal ci la ma juge war a juger pour mën ma condamner nekk juge et partie ma ne ko indiwuma fi yàmbaa bi ba ma nekk indiwuma fi yàmbaa bi mu ne ma waaw daal di bind waaw Ardo nié na la présence du chambre indien dans son poste quoi ma ne ko non on l'a introduit dans mon poste bu loolu amee ñoom naka lañ def dañoo jël carnet bi donc ba ma ba ma bañ ma kiiyee ba pare bañ ma euh, auditionné ba pare ñu ne ma signer fii ma signer ma signé ñu téem a garde à garde à vue trois jours di ma laaj ay plan A ak plan B ba ma laajee plan A plan B ma ne leen ñun la leen wax ne ñu naan palan A moo nekkoon attaqué gendarmerie plan B mooy attaqué ICS ma non mais enfin arrête lan mooy plan B mooy attaqué ICS ba loolu amee nag léegi ñu ne ma léegi il faut que yow donc nga nga coopérer soo coopéré wul donc du ñu yàmbaa bi du ko dindi sa PV. il faut nga coopérer pour ñu dindi yàmbaa bi PV. mais boobu fekk na carnet bi signé woon naa ko ba pare boobu fekk na carnet bi signé ñëwoon naa ko ba pare te carnet bi dafa nekk loo xam te ne ay trace la mënul dañ ñu ne ma foog nga coopérer pour que yamba bi mën a bañ a feeñ sa PV. may leen ok may leen man lan laay mën a coopérer ci loo xam ne defuma ko leen lenn am na moom woote naa rassemblement buntu gendarmerie mais musuma woote pour ñu attaquer SES mu ñëwee ko complètement ba ma demee si kanam justice bi aussi noonu laa ko ñëwee ba may bañ may defee rek ñu jël PV bi ñu dindi si yamba bi PV bi dañ si dindi yamba mais ba léegi moo ngi si carnet bi xool leen reconstitution des fee bi bañ demee si reconstitution des faits est-ce que xam ngeen ne ba ma bañ demee carnet bu bees tàkk laa fa fekk ba ma demee premier passe premier passe lañ ma def man carnet bu bees de def ma premier passe la nekk si PV bi ñu récupéré waat ko si carnet bi la nekkoon si carnet bi initial bi ñu jël ko xamoon nu ñu ko def ñu sàqal ko pexe jël sama signature falsifié ko sama signature bi nga xam ne moom moo moom laa si yoon si PV bi ñu si si carnet bi ñu jël ko falsifié ko est-ce que ñun ñi ñun ñi ñii ñii citoyen yi ñun est-ce que ku si falsifié signature dina la jig mais bu ñu demee ba gendarmerie national chef adjudant chef ba si carnet am carnet adjudant chef ba ñu jël di di falsifier sama signature là y a problème ba pare ñu ne duñ ko wax léegi li nga xam ne moom mooy xew. ñaata nit lañ fi defeere ñaata nit lañ lañ ñoom ñoom lañ fi dóor ba ñuy génn àdduna tey jii tey ñu ñàkk seen bakkan si affaire torture ñu ñàkk ñoo la ñu dem yóbbu leen euh, prison koy leen motif si affaire yamba ndax lan man Ardo wala wala euh, Abdou Karim gendarme la am na problème ak Clédor euh, donc mu jël yamba dugal ko si poosam bu demee léegi après ñu jàpp ko si yamba boobu jugé ko si dem defeere ko ñaata nit loolu moo ñaata ñaata yoon est-ce que loolu ba kañ mais cette banditisme là loolu noonu jig nañu jig na jig na Sénégalais yi ñun mais waratu jig li nga xam moom mooy gendarmerie nationale loolu bu fekkee dafa am si gendarmerie nationale ñun fan lañ jëm est-ce que nous sommes sécurisés mais en fait il faut que il faut que ñu waxante dëgg su Sénégal il faut que ñu tey tey ji tey dafa jot sëkk ñu waxante dëgg mooy lan mooy que li nga xam ne moo xew si suñu réew du dëgg du yoon te tey ab réew njub moo koy moo koy moo koy moo koy gérer njub moo koy defar mais jubadi mënul defar ab réew mënuñu gérer suñu réew si jubadi donc loolu c'est impossible encore une fois donc il faut que ñu veiller si bu baax a baax baax te on ne joue pas que injustice bi nga xam ne def nga ko la personne de Ardo Gningue ça dépasse ma personne comme ni ma koy faral di waxee mais on ne tey dëkk bu tàkk guerre boo gis injustice moo koy indi injustice moo parce que le sénégalais bi ngay teg injustice ay yaayam fi lañ nekk ay ndijaayam fi lañ nekk ay frèram fi lañ nekk ñëpp fi lañ nekk encore une fois on ne joue pas avec l'injustice léegi nag am na lu am mooy on a falsifié ma signature sama signature dañ ko falsifié l'adjudant chef ba moom mooy responsable parce que moom mooy borom cadre bi cadre bi soo fa dee da nga cay fekk l'adjudant chef ba loo colonel Cheikh Sarr m'a torturé léegi nag on on exige la radiation du colonel Cheikh Sarr et que justice soit fait parce que lii warul nekk loo xam dafay dafay dañ koy bàyyi noonu mu sedd tey jii tey ba mu demee si prison ba fekk naa fa waa waa Béti Gueye trois personnes yoo xam te ne gendarmerie ñoom ñoo leen fa yóbbu ndax lan Aquatec benn entreprise boo xam te ne dafa nekk si biir dëkk ba jaay leen doole jël seen ay doom tëj leen si biir kaso bi te kenn yëg ko mais yow ba ñu ma fekkee si biir kaso bi la laa leen wax lan ngeen fi def ñoo noonu dañu doon xeex suñu population parce que Aquatec dafa nangu suñu suñu suñu kii bi suñu forage bi léegi ñun ñoo taxaw doon leen ko xeex ñun leen jàpp ñu jàpp ñu tëj ñu <laughs> léegi loolu laa ne bëgg a à chaque fois les choses se da ngay fekk ab benn privé ñëw si dal si benn population ñu woo benn gendarmerie nationale bu ko transformé en privé jël ko pour euh, dal si muy dal si ko population bi loolu ba kañ. léegi nag ñun moom nu sommes là nous sommes toujours la tant que yàlla mu ngi ñemee suñu liberté ak suñu vie nous sommes la et on va défendre la population duñ ci amuñu si xàjj ak seen surtout nag ñi nga xam ne ñoo nekk si communauté rurale ñi xam ne ñoom nekk si village duñ ci amul lenn luñ ciy bàyyi amul lenn si parce que loolu dafa nekk loo xam ne suñu devoir la heure buñ ñu soxlaa. ñoo ngi fi ñoo ngi disponible nañ te vraiment ñoo ngi ñaawlu li nga xam ne moom moo am si suñu réew mi bëgg nag yoon def liggéeyam ñoo ngi leen di lancer nag un défi un grand défi que sénégalais boo gis danaa du mujj fenn te ñaata nit lañ fi cambriolé seen ay place ñu dem def déclaration def kii réclamation lu nekk ñu def ko du mujj fenn ñaat nit lañ fi torturé si ay si police ñu dem wax ko si suuf ni ñaa ah lii de bu jarul sax ngay dem di ko wax fenn parce que du mujj fenn léegi nag actuellement sénégalais yëpp ñoo ngi leen di déglu je suis sénégalais yëpp ñoo ngi leen déglu pour que mbir mi mu mujj fen encore une fois on ne joue pas avec l'injustice on ne joue pas avec l'injustice mbir mi am na fu mu tàmbalee mais amul fu mu yem.